studio dégg dem tournage fekke xam lii ñëw <laughs> Ngaaka Blindé mu ngay waajal album le 7 novembre 2023 li tax Ngaaka Blindé di waajal album ak classante bi nga xam ne mu ngi koy classe jëmale ko ci waa lu Brick boo ko bëggee xam déglu samay kàddu bu baax ma décortiquer la ko benn par benn vu que lu tolloog ak si ginnaaw Ngaaka Blindé defoon na benn classe si waa Akhlou Brick ba fi mujjee fi nga ki nga xamante ne moo di Ngaaka Blindé moom la jël jox ko victoire ñu ñëwaat ci atum 2023 Ngaaka dóor benn vidéo classe si waa Akhlou Brick waa Akhlou Brick tontu diggante démb ak tey ñu bëri Akhlou Brick la àndal li ñu ne boo yëy yàq ba yëy yàqu bukki yëy nga yëykatu yàq ngaa ko mën na rab axlu birig ñoom it mën nañu rab mais bu ñu waxantee dëgg rek fi ñu toll nii axlu birig moom nekkagul si kanam li gën a metti ngaaka nag moo di saabo bi nga xamante ne wax nañ ko ko ngaaka mel ni jinne bu jëfru waral nag mu ne léegi xeeb ne clip bi nga xamante ne déclaré woon na ko ne dee ko génne tey ba ñu bëri ñu ngi koy classe jamono bi naan ko waa Ngaaka est-ce que doo ko vocal mu ngi guddi te nit ñi dañoo bëgg tëddi élèves yi suba dañoo bëgg jàngi ñiy liggéey aussi dañoo bëgg dem liggéey peut-être 23h Ngaaka mën ko génne waaye nag dañu ne màggetum jinne lu màgget màgget dese na ay ngalañu yu muy jombalee gone ba tax na. est-ce que ngaa ko bu génnee du faj ki nga xamante ni moom moo di ak rubrique loolu yëpp jar naa bàyyi xel ndax rab gaal seen ku mën sa morom duma bëri bukki ak mbaam la ba tey ci li ma nekkoon lay continuer ngaa ko ak rubrique dóoragu nañ ko bi muy 1-1 ba fu ñu mujj peut-être mën na égaliser dóor 2-0 wala ak rubrique sax remonté ko wala ngaa génne clip bi classique dip obligé daal la ak bépp rappeur bi nga xam ne jamono bi mu ngi ci biir Sénégal objectif wu Ngaaka gis nañ que rapport Sénégal yi ñu si bëri amagul kenn ku ci àggagul li nga xamante ne moom moo di un million d'abonnés ñu bëri ne est-ce que Ngaaka nga xamante ne moom la nekk def ni objectif am mooy atteindre un million d'abonnés bi nga xamante ne gisaguñ benn rapport Sénégal yi bi nga xamante ne amagul amagul na ko ñii ne déedéet Ngaaka dafa bëgg yëngal ngeen bi mais objectif am réellement du 1 million d'abonnés wala dara ku si nekk ak sa xalaat ku si nekk ak li ngay gis nag loolu waral débat bi ñun ñëpp képp kuy mélomaan mën nga see wax sa xalaat wax lan ak lan nga gisagul question bu may posé mooy Ngaaka bés bu laalee waa ki nga xamante ne moo di Dip est-ce que xeex bi du gën a metti ci moom wala bés bu déclaré guerre ki di Casamance est-ce que Ngaaka dina entendre rythme bi nga xamante ne moom la nekkee nii lii nag jamono bi ñu bëri ñu ngi koy waxtaanee kii bu Ngaaka ak ki nga xamante ne moo di Dip ndax mu ngi waaj album est-ce que tamit Ngaaka bëggul def tendance boobu noonu lii daal moom la askanu Sénégal yépp di wax fi nekk nii rap galsen yëngu na rap galsen jamono bii nii suul na musique loolu la gars bëggoon. jamono bi nag képp kuy déglu wala kuy yëngu ci wàllum rab sa xol mu ngi fiix sa xol mu ngi baax jàngeen jëf ñu ngi leen di ziar di leen jox daje ba bés bu kili bu gàkk bi génnee fii ak vingt 23h wala fii ak suba ñu ñëwaat defaat si beneen émission bi nga xamante ne décortiquage lay doon ku ci nekk wax sa xalaat ku ci nekk wax nag nga gisee bii les clash jàngeen jëf yéen ñi nga xam ne yéen ñi suivre saa su nekk. bés bu nekk ñu ngi leen di ñaan ngeen wéy di abonné ba cloche notification ndax mbooleem vidéo bu ñu dugal ngeen mën see jot ci lu gaaw jaa jëf